wa Pawlish sama dom la Pawlish c'est mon fils sama dom la Pawlish sama dom la lum wax ci man dako wara wax ci man Pawlish moo mom suma jëm ji moo mom suma ma lum ci tek dako ci wara tek c'est mon fils Pawlish sama dom la du jambour wa du jambour ci man man jambour moy wax ci man mu nakarima mais ku bok ci man du wax ci man moy metti Pawlish c'est mon fils sama dom la non non non non non non non du am ak problème sama rek du ma am ak problème koo xam ne dafa bokk ci sama njaboot du ma am ak problème koo xam ne maag moom ñoo bokk génn kilifa muy président Waly Ballago Seck loolu ma ko def mu Pawlish la doom la xarit la lii du dara. showbiz moo ni demee. est-ce que nekkul Omaro dafa ko écarté pour loolu man jëluma place kenn te it soxla ma jël kenn ci li président bëgg laa nekk mu may sant may def mu may tere may bàyyi man président moo ma ñor li mu bëgg laa bëgg li mu bëggul bëgguma ko liggéeyam bii du laal suuf. nu mu jugee ca kaw mu am ndam raw ñëpp man ñëpp féete kaw ñëpp loolay sama objectif te looloo ma ñor te ci loolu laa ne Pawlish Mbaye c'est sama doom la lu mu wax ci man da koo war a wax maa ko may ci xol bu sedd guy. bu jugee ci loolu dañuy wax ci beneen coow boo xam ne mu ngi ci biir euh, euh, Ramadan gis nañu ak Baye coow li daal di mujjee jub yeneen i coow nan ngeen dundee coow loolu seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel Adamo ak Baye ay mag ak rakk ay xarit lañu saa bu président Wally nekkee France bu ko Adamo tegee ba Baye Zala jàpp ci loxoom di yóbbu ko ba ci hôtelu président ci biir néegam na ko sa rak sa doom a ngi nii Adamo laali kott ko akolaat ko saafante ak moom bégee ko boo amee ci wërsëgam nu mu koy teralee mu terale ko Adamo ba man bi may jóge Angleterre di dem fi nga xam ne mooy Paris di leen fa fekk Adamo ak Baye Zala seen ñaari néeg yi ñoo dend ci même hôtel hôtel boobu laa dal huit jours

Amady Badiane. tamit mm. loolu fan ko teg. kan moo ko waxal. Adama. ah man loolu dégguma ko. loolu moom dégguma ko aw ma ci ay tom aw ma ci leeral parce que dégguma ko. mais mais Omaro sa ñëw ah. mu mel ni dafa am yu muy dérangé dem euh, ba ki nga xam ne mooy Wally Seck liggéey ko ba mu leer. Ah. lan ngay waaye mais ku sa bopp nooy liggéeyee jàmbur. Omaro saggatuwul Omaro takkul Omaro naanul Omaro rab la doomi tuur la. day tëdd nelaw yàlla wan ko li mu war a def mu xëy sàkk sarax pare na ci nga ne ma barke karim ak sama bakkenu doom kon nan laay demee di liggéey nit man taluma man taluma def gàllaaj ci sama yaram nan laa koy defee ci nit loolu moom loolu uh-huh. bu njëkk ba gisoon nañ ko mm-hmm. mu demoon ci benn xew naan li nga xam ne moo di communication tradition yu ndaw yëpp maa ci gën maa ci gën maa ci gën a ñeme yow damay rek bari na xam nga lu garaaw sama yaay daf ma woo ba ma ñëw na ma Omar ma ne ko naam mu ne ma wàññil communication bi ci presse bi ma ne ko yaay lu tax mu ne ma parce que yow caaxaankat nga yow da ngay foo di divertir gars yi jël ko def ko dëgg te ñi koy def dëgg ñëwul ba dugg di xeex ak kon bàyyil foo yàlla seere na ni bi ma wax loolu damay nopp rek ak di foo ak sama bakkenu doom mais du réalité du lu dëggu ci man te terewul am ñu ko gëm jug takk seen digg laxasaa yu jàpp ne ñoom laay déclaré guerre wala ñoom laay lancé ay pic ñu bare pour xeex ak man te ci ay caaxaan ak i kaf rek laay nekk ba tax gars yi di am na ñuy doxe man daal ci caaxaan laa ne man xala boo xam ne wax dëgg yàlla euh, lekk ba suur laa tal naan ba mandi liggéey yi xool nu président amee ndam euh, takk ci jeeg ji doxal ci xale yi fexe dawal ci Mercedes yi comme ni ma koy defee mos dara yóbbu ci banque ba la ko des ñu tëral def ci poos lu bari nag ci samay caaxaan mooy waral ñu bari di ma déclaré guerre di ma def noonu di pare pour man taxawaay yàlla dara jaal ko kilifal ko mais man booy man xale bu tuut laa judduuma man ñi fekke woon sama ngénte su am li mi ñoo xam ngeen ko bu desi bi ak sama bakkenu doom bi ñu may ngénte moo luwe saisi billaahi wallaahi wa taalaahi am di million biñ may ngénte moom la sama papa jox quinze mille francs à l'époque moo jël siège yi def ko ci saret dem loué ko kon moom judduuma gars yi nañ bàyyi may foo ñuy def dëgg man damay foo rek li nga xam ne démb Youssou na ko kàddu yu bari la Youssou Dieng hmm. daal di wax biñ ko dékkee suñuy micro hmm. foofa ca mu def ay révélation yu bari ci biir li nga xam ne moo di Ramadan révélation yan dëgg ma ko def waaw man bokkuma ci biir Palmarin bokkuma Ramdaan bokkuma staff bokkuma groupe man ci fan club bi laa bokk man fan si club Wally Family laa bokk bi Mamito géré Mamito xam ngeen Mamito fan club bi mu géré man fa laa bokk man fan si Wally laa bu bëgg Wally ba aw ma ci moom sakaw di ko topp di ko jàppale ci liggéeyam bi ngir bëgg mu jàmm bokkuma staff bokkuma groupe bokkuma orchestre je suis un simple fans simple fans boo xam ne amul lu muy décider amul lu muy dogal amul lu muy nome président Wally la bëgg mooy soppeem jiital na ko xool li mu bëgg mu di def xool li koy may ndam mu di ko def Omaro c'est un fans de Wally bokkuma bureau bokkuma direction bokkuma staff fans laa Wally laay wër Wally laay topp li mu bëgg laa bëgg lu mu bëgg bëgg ko moo ma ko def man président Wally vidéo baa ngi ni sama téléphone daf fay bu tàkkoon ma tegal la ko boo duggee samay sot léegi di nga ko gis moom moo ma Mavi, porte parole maa fi maa fi eh, sant laa waaye waali bu tëddee ba cinq heures demi du matin moo ko yee ne eu estou def bu dugg def te du xalaat ak sama bakkenu doom dama ne man sant waali laa bokkuma bureau bokkuma staff sant laa ci mami ko laa bokk waali famille mais dama ne bu waali nelawee ba cinq heures trente man Omaro bu ma ñëwee dëkk këpp jox président mëna ma naam mën a ko jugal ne ñu jug def suñu teg baat dama ne président bu jëlee engagement ne du def su ma ñëwee ne ko président defal mu def lu teg baat dama ne fan si laa te am na fi ay contrat yoo xam ne malax nañu ko ñu fay kase yi ba nit ñi ñibbi maa ko négocier maa ko signé te fan si laa waaw waaw te fan si laa léegi nag nañu nañu bàyyi as gone bu ko yàlla dimbalee teral ko am lu mu def ci moom parce que wolof dafa am wax ju am solo ju wax dafa na secret bour ba doole du ko xam te gis nga président Wally daf ma ubbil xolam ubbil ma dënnam duggal ma ci neubuma biram neubuma bitem ma bitéem man bal ma bal ma bal ma yeggeeg man yeggeeg man fo xamne ci dénkaane ak ci lum ma wan ak ci lum ma dé xolam dafa am ba doom solo bi wax ma fi dafa na secret bour ba doole du ko xam li ma lay révéler ni légui mu def 1 an te ma ngoy koy wax tay parce que da nga yee ci man luy nelaw nañu maytu loolu xale bu toggee ci këm nekk ci liggéeyam jàpp ñàmburam nanu ko bàyyi bu nu ko tukk parce que man xale boo xam ne boo ma laalu du ma la laal mais boo mu tukkee dama lay xosi parce que bandi laa mais dama ne dama ne président Waly fan sam laa man bokkuma bureau bokkuma staff bokkuma groupe bokkuma orchestre mais dama ne bu jàppee moom ba na lay def su ma ñëwee ne ko génn ci da génn bu tëddee dina la su ma ko yeewee na ko defal day dul def dama ne mbalax nañu fi ay contrat yoo xam ne mbalax nañ ko ba mu jeex ñu fay cachet yi nit ñi te maa ko négocié am na gisat boo xam ne fekk tuwaal yi fekk signé ko euro maa ko signé lii mooy non lii mooy lii mooy lii bi ma mën a wax su ma waxee benn denc naa téeméer bu ñu ko yee nag nan ma bàyyi ci sama rup ma jàpp sama ñàmbar bi côté bële. ñii ñoo tax industrie ñii génn critique ak ñeneen eh, doon wax man li ma waay wax wala ma doon man li ma ne li muy dund ak waale ak li ñuy jëflante dana xëy suba ñëw ci këram dootu gis nii ah ak sama bakkanu doom. non non non non sama taaw bu góor bi ma xam yàlla moo ko tegati bët. dama li muy dund ak man muy sunu vie privée. ak lim may wax ak lim may confier ak lim may dénk. ak lim ma defal ak li muy rëkkati ci ay xéwalu boppam di ma ko dénk su ma ko doon wax wala may wane dana xëy suba bëgg nit këram ku ko seet si du ko gis ndax crise de jalousie da nga rey nit ba doot fa teg tànkam waaye dama ne dama boole lépp dëgg ci sama tànk tey doxal sama liggéeyam na pàcc kon li nelaw buñ ko yee simple fans la waaye président lu ma ko ne defal dina ko def lu ma ko ne bàyyi dina ko bàyyi parce que xam na ne lu ma ko digal njëriñam ma wax léegi ne euh, Pawlish sa fils la coowal fils ba fils nag moo indi ah, ah. ay bés wax nga fi woon sax benn vidéo hmm. sama doom nga ngeen di hmm. waali wax njàpp na ko sama doom nga yaag sa patron polémique am si nan gisee mbir moomu si tamit génn frustration am ci. waaw frustration foo mu am parce que Wally du bàyyi Sidi. Wally maamu Sidi la. nga eh. waaw du bàyyam. du bàyyi Sidi. man maay bàyyi Sidi. Sidi man la dénk boppam dénk ma carrière am ñeenti at di ma wax papa te fekkee nga ko kii fekkee na ko kii fekkee na ko fekkee na ko. du ngeen eh, dama ne ay nit ngeen. ay gor ngeen du ngeen ay naaféq dégg ngeen ba taay Sidi naan ma père. vidéo yaa ngi sama téléphone yor naa ci cinquante quatre vidéo yu ma naan bàyyi man waalee saa bàyyi kon Sidi Waly maamam la Sidi maay baayam Waly di maamam man Waly mooy sama bàyyi man Omaro waalee sama bàyyi may bàyyi Sidi Waly maamu Sidi la Sidi nag laay naa sa appel waalee ma jox ndigal na ma naa génn ci moom naa ko bàyyi mu doxal aw yoonam te ma yéene ko jàmm te di ko ñaanal waale ma tëj ci néegam na ma bu la dégg ti nga gaaruwaale Sidi bu ma la déggati nga yóbbante Sidi ay wax bu ma la déggati nga déclaré ko guerre bu ma la déggati ngay jëm dara jëm ci moom bàyyil jàmbur xala la bu nekk ci yoonam bàyyi ko mu liggéey boo seetloo depuis juróom benn weer jàpp juróom ñaar wàccee naa samay arme fu ngeen ma laajee wax ci moom lu baax kon nag nayam place am ndax arme yi ko aalew ma ko dama ko wàccee rek ay waxam na ci génnee président Wally moom xam na ma doful ay jënd maju ko Sidi Diop xam na kan mooy Omaro deful ay jinne ma dama ne ay waxam ay waxam ay waxam na ci génnee président Wally bu ko ci génneewul armes yi dana jug te bu boobaa dinaa ko massacrer asalaamaaleykum wa rahmatulah barakaatu jërë ngeen jëf.